al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin وبعد فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن الإسلام كما يهتم كما يهتم بنظافة الظاهر يهتم كذلك أو أكثر بنظافة الباطن باطن الإنسان قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ونظافة الباطن تتم بالتطهر من العيوب النفسانية والآفات القلبية allati lam yuftaal lam yuflix alabdu illa bi tazkiyati nafsihi minha qaala taala qad aflaxa man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha wa hadihi alaafaatu ayuha alixwatu minha ma yakunu fi calaaqati alinsani bi rabbih كالرياء الذي هو نوع من الشرك وهو يحبط العمل ويجب الخسران حقيقة الرياء لدى الأكياس إيقاع قربة لقصد الناس wa man yakun lil xalqi daltifaati fi saihi fa bilaain aati qaala taala fa man kaana yarju liqaa rabbih fa man kaana yarju liqaa rabbih falyacmal camalan saalixan wala yushrik bicibaadati rabbih axada wa fi lxadiisi an annabi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam fi riyaa yaxkiihi an rabbihi azza wa jalla qaal man camila ligayri camalan falyaltamis sawaabahu min ana agna shurakaa'i an ishirk wa minha al-ujb wa huwa kama qala al-abdu al-xadimu radiyallahu anhu maylun ila nafsin ma'a isti'zami laha li nisyanika dal anami dawaa'uhu ilmuka anna al-amala li maliki al-anami jalla wa ala wa annahu ma zilta dha taqsiri fihi wa lam taji' bika an-naqiri fi jambi ma alayka min haqqi al-jalil wa lam taji' bi darratin wala fatil wa anna man ala siwa allahi i'tamada anhu takhalla wa tawa yawma an-nakad wa annahu la wa annahu yumkinu an laa yuqbala li kasrati lilali fihi faaqila wa rubbama ibadatun kathira qad afsadatha lahbatun xatira laa yanbagi lilabdi daawa azama kurabihi li rabbihi lil niama ñu ngi sant borom bu tedd bi subhanahu wa taala di bind ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk yi may fàttali sama bopp leen fàttali ne lislaam ak laab ak set te koy teel setu kaw nit ak biiram ni mu ittewoo lool kaw bi di set ba tax mu di ko digal laab saa su ne noonu la ko digalee biiram di set wala sax setu biir gi la moo gën a ñor yàlla subhaanahu waa na ci alxuraan yàlla bëgg na ñiy setal seen biir ak ñiy setal seen biti tawaaboona mooy ñiy setal seen biir ci laab ci tuub ci bépp bàkkaar boo xam def nañ ko mutatahirin nag mooy ñiy setal seen kaw ci bu laab waree ñu laab bu sangu waree ñu sangu bu jàpp waree ñu war jàpp fexe ba li lislaam si santaane ci wàllu set ci yére ak yaram ak barab lépp ñu di ko sàmmante nit ki nag ngir setal biiram faw mu laabal ko ci ayib yi nga xam ne day nekk ci bakkanam dina ci xolam di yoo xam ne bakkan doomu aadama du texe mukk te tàggale wutal nga faw nit ki sellal bakkanam ci ayib yooyu door a mën a texe suñu borom nee na ki sellal bakkanam kooku moo texe waaye ki ko tilimal taqal ko nee na kooku sooy na yow man xeex du am ci yiw Euh, ay yibi bakkan yooyu nag mbokk yu bare bare la yenn yi diggante jaam bi ak borom ci lay feeñ bokk na jëlu mel ne ngistal lu mat la jëf loo xam ne yàlla rek war a tax ñu di def yow nga di ci sóoraale nit ñi xeetu bokkaale la day yàq jëf di waral pertement fii ci àddina ak wàlla xeer sëriñ bi nee na ngistal dëgg dëgg mooy nit ki def ak jaamu yàlla waaye nit ñi ñoo tax mu def nit ñi rek a tax mu def bu dutoon nit ñi di ko def kon lépp looy defal yàlla na yàlla rek tax boo ci bàyyee xel nit ñi wala nit ñaa tax nga di ko def loolu nag am na nay màndarga bokk na ca bu fekkoon bu dutoon nit ñi doo def boo jëfee nit ñee tax bu fekkee teewaayu nit ñi ak yëru ñi dana tax nga gën a rafetal jëf ji wala nga gën ko bari yaa ngi gisal sëriñ bi nee na képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel nit ñi ci say jaamu am gisal kat képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel nit ñi ci say jaamu am gisal kat li yàlla daal nit ñi teew ak ñu wuute ko ñu yëpp ko am ñàkk ko yéeg ñoo saa boo yëgum nit ñi jeexitale ci jëf ji wala xamum nit ñi jeexitale ci na nga xam ne ci sant bi suñu borom noonu la it ku yaakaar dajeeg borom bu ëllëgee nay jëf yiw te bu bokkaale yàlla ak dara gisal nag xeetu bokkaale la ndax li ñuy defal yàlla dafa sekk te borom bi na day sala moo ko def ci xadis ko si jëlam wax ne suñu borom wax ne képp koo xam ne jëfu nga jëf ngir keneen pour dul man demal ca kooka mu fay ndax man yàlla kat ñi may boole ñëpp maa leen gën a doyul képp ku ñu may boole def bàyyi bàyyi na bu bokk kenn kon ñu bàyyi xel ne ci ay bi bakkan yi jaam bi war a góorgóorlu ngir saafara ko ngis kat bi la bokk fexeel ba lépp looy defal yàlla na yàlla na ko tax gisu nit ñi bu mu ci jeexital bokk na ci ay yooyu it li ñu tuddee mooj bu nit ki naw boppam yëkkati boppam sëriñ bi wax na ne mooj bu mooy nit ki jeng jëm ci bakkanam di ko réyal fàtte yàlla ni ko bindoon ndax ñaare li tax nit ki di naw boppam muy bari lu baax lu muy def moo tax am jàngoro joo xam ne ñaareel nit nit kuñ yaakaar ci moom mbaax lay dal lu ma tamal jur di def lu baax ci xeeti jaamu yàlla yi góorgóorlu ba tax nga yëg ne yow baax ndax yaa ngi def lu baax loolu ci ay biir bopp ab jaam wër te yëg li muy defee yàlla lu mu réy réy la ko war a xeet moo tax sëriñ bi ne saafaras naw naw sa bopp wala naw sa jëf mooy nga xam ne jëf ji ngay jëf moomu la ndax cër yi koy jëfee yàlla ko moom yow li ngay def ci lu baax bu jàpp bu ko ne sa ngóora wala say pexe wala sa man-man maanaam coobare yàlla moo ne ci yow nga di ko def waaye doona ci des it nag na nga xam ne sa diggal sa borom loo ko def loo mën a def ci lu baax te taxul nga matal sa borom a yàq dangay jéem rek waaye li nga amee yàlla ci yàq mën na ko matal ki wa ki mën a bàkku nag ci ay jëfam mooy koo xam day wax ne li ma yàlla seq ak borom lépp defal naa ko ko kon euh, sama diggante moom ak dootu bi sëriñ bi nee na jàppal ne yaa ngi gàttañ lu ci sa digg sa borom dafa ko dara ci li la war ci ci àq yàlla lu mu rëy rëy la jàpp ne lu tuuti la bi ci desit na nga xam ne képp ku sukkandiku ci ku dul yàlla yàlla bàyyi daal la nga sukkandiku te bokk na ci loolu nag sukkandiku ci say jëf maanaam góorgóorlu ci lu baax ba tax nga jàpp ne say yow boo faatoo faw nga tax ndax li nga def ci baax loolu bari koo dajee jàpp ne yàpp ko ndax li nga def ci lu baax sëriñ bi nee na ku sukkandiku ci lu yàlla yàlla bàyyi boobu loola te ku yàlla bàyyee leneen loola al ànd ak moom bokk na ci nga xam ne jëf li ngay jëf lu mu bari bari wóor la ba xam yàlla dana ko nangam de ndax man ngay def lu baax lu bari waaye ndekete am na loolu ci biir lu ko yàq te yëgoo ko loo def rek yàlla delloo na ko lias billah jàmm yi buy xalaat fu mel noonu dana góorgóorlu ci jaamu yàlla waaye lu jaamu yàlla bari bari lu tax mu naw ko tax mu xeebe ko te sëriñ bi nee na jaamu yàlla mën naa bari lool waaye ngir bu gàtt mën na ca yàq iblis dañuy wax ne fu ne jaamu na ko yàlla waaye benn jataay la ñàkk lépp ba ko yàlla sante leen digal mu gàntu digal la loola moo ko xañ nga doxal ci baax leen jàmm bi nag yaa wóoru ko koy mujj kon bul nawagul say jëf moo tax sëriñ bi wax ne jaaruwul ci ab jaam muy woote màggaayu ay jaamu yu jaamu yàlla yàlla nga xam ne xéwal koo moo la li ngay jaamu yàlla sax ko war a sant yàlla ci loolu fa kon amoo looy màgg looy réyal sa kanam sa borom suñu jaamu xam ne ci yi ñu war a moytu ci la bokk suñu xol fexe ba kenn ci noonu naw lu baax li muy def lu mu rëy rëy xeex ko te jàpp defu ko dara bokk na ci itam yoo xam ne day xew ci diggante nit ñi di feeñ lu mel ne ak rëy rëy ba tey bokk na ci ñaawteef yi jaam yi war a góorgóorlu ba tàggale koog seen bopp suñu bëggee mucc bu ëllëgee iblis moomu ñu wax léegi nga xam ne fu ne taxaw na ko darajaam àggoon na ci di jaxasoo malaaka yi ba ñi xamul jàpp ne malaaka la te fekk jinne la waaye ak rëy moo ko dal ba lam dafa lépp mu yàqu bi neen rëy nag mooy nit ki di yëkkati boppam ba tax mu jaral ko nëbbu dëgg di màggal boppam ba noppi bi di xeet ñenn ñi koo dalee la jàpp ne yaa ko tiim kaw jàngoro ju rëy la ju la joo xam ne yonent ay islaam sàkk woon na waxoon na nañ na na ñépp muslim nañ ko moytu waxoon na ci ay waxam ne àjjana koo xam ne sa xol lu toll ne zarra li gën a tuuti ku ne ci xolam ci ak rëy lu tabel sëriñ bi nañu rëy mooy bon bon yi gën a màgg ci bon bon yi ndax diine lay yàq nee na yeneen bon bon yi nag ay jëf la yàq jëf bu yàqoo mënees na ko defaraat waaye nekk nag bu jine yàqoo fóoti na moo tax rëy day màbbu diine te bu diine màbbee dañuy fekk yàqu loolu si moo moo gën a bon ci bon bon yi nag ak rëy da ko warul sax nag mbokk yi jaam benn bu rëy war bu mu ndax melokaanu iblis la ci la ko yàlla alale bi ci desit sëriñ bi wax nañu doomu aadama bu xoolee boppam dana xam ne moom fu mu war a jaar bëri loolu na xool démbam laata muy judd ci lu mu bàyyi ko bu xoolee loolu nee xam ne rëy lu tuuti la adduna yi boo fi ñëw ba ba ngay jël adduna waxtu wala yaa ngay sobe ci sa biir yaa ngay sobe ci sa biir soo faatoo doon métt ni say bokk yi la gën a fonk bala nga xam dama tàggoo yow dem gas a suuf doomu aadama kon diggante boobu waru fee wane ak rëy ndax ku xeebu la fa kanam boromam ba tuuti la ci kanam boromam rëy nag am na ay mandarga bokk yi bokk na ci xeeb sa morom kon na ci dajeeg nit ñi jàpp ni yaa leen gën doomu aadama li tax mu jàpp ni moo gën moroom léegi-léeg mu doon jëf te wax nañ ko léegi mooy naw sa bopp la te jëf ji wóoru la ba xam yàlla na mën a ko béy kon jër te naw jër ci tax nga jàpp ni yaa leen kenn ñenn ñi ay juddu ci la ñuy nawee ci la ñuy ci la ñuy jàpp ne ñoo gën ñi ci nag bu amee juddu bu rafet na xam ne defu defu ci dara te nit ki li mu war a tiitaroo mooy lim góor góor nga def ko juddu nag bu rafetee da nga am taw fi kon sant yàlla ci rafetu juddu bi te fas yéene koo sàmm ndono la la lañ la bàyyee nga fexe ba dundal ko dafay koy loolu mooy warteefu koom bi warta waaye waru ko tiitaroo ci bi na ko ab kël bu romb nga yaa ne ci kaw kël bu bi keroog kël boo la gën kël la wax kum romb nga jàpp ne yaa ko féete kaw na xam ne ne nit ñi li ñuy rawante diine la ak xam-xam ñi xam li war a xam di def li ñu war def nee na ñooñu ñoo gën waaye nee ci ñaar yooyu rek lañ di waaye askanu ci ku baax lu mu kawe kawe ci ndey ak ci bàyyi kenn du ci gën kenn kon jaam bi na nga farlu ci am diine na nga farlu ci xam na nga farlu ci boole ko fi teggin ngir nga mën a gën wala jëf wax nañu feneen ne jaam bi bul jàpp ne yaa gën ndax xamoo fooy mujj xamoo fooy mujj wala jëf saa bu ñu ne bu la woon bis penc rek saa boo duggee aljanna koo fa fekkul mu yàqu ko koo fa fekkul waaye nag ginnaaw ak buñ foofu mbokk yi nañ góorgóorlu te bàyyi gis bi ak rëy ji ak jàpp nañu lu kenn bokk na ci ay eh, kañaan kañaan te sëriñ bi nee mooy ku yàlla jindi ab julit yàlla defal ko xéewal ngay mébét xéewal ga nga xam ne yéene woo ko xam ne ju la ci biir waaye nañ xam ne lor neen la te it borooma ci njëkk a loru nit ki iñaan foo ko fekk moom ab xolam a ngi tàng di mer ci xéewal yàlla sotti ci moroom jaamam te yàlla moom yëgut te ñaan ko ba faaliwut loolu lu tee muy def la muy def moo tax benn xarit boo xam ne bu yàlla naree tasaare ngëneel loo xam dafa làqu day wut ko iñaan teg ko ci wet muy jéebaane di saboote di wax ngëneel lay tasaaroo nit ñi di xam kooku fekk moom jàppoon naa ne da koy lor fekk da koy jël nee na misaalu mooy cuuraay sawara day ñare cuuraay ci xatam gu neex di ko lakk ngir bëgg koo lor fekk lakk gi mu koy lakk ci la xet ji tasaaroo nit ñi gën ko bëgg kon noonu bokk yi nañu fexe ba sellal suñu te nañu sukkandiku ci yàlla sunu borom te ñu sukkandiku ci jëf yi tey góorgóorlu ci jaxasoo nit ñi ak jikko ju rafet te mooy woyof ak yéene ñëpp jàmm bu ko defee lañu am texe nag àllaaxira lu dul loolu nag dañuy yàlla na yàlla boole dimbali عن مولانا محمد وآله أجمعين وبعد فإن من من قرة ونفسي معك بالحق معك عزما ورمد الخلق وهو ذا الخطير حذر أمة النبي صلى الله عليه وسلم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمة أمته قائلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فالكبر أعظم الرذائل الجميع لأنه يقدح في دين المطيع وغيره من البواقي إن حصل فإنه يوجب قدحا في العمل وهل ينبغي للإنسان أن يتصف بالكبر سبب هلاك إبليس اللعين maama alxaqiqati alwalida fi bayti alabdi alxadimi hadayn qad kunta qablu nutfatan madirata wa sirta baadu xaamilan adilata ثم تصير جيفة قدرة ممكنة قبيحة حقيرة ومن مظاهر الاحتقار الخلق ورؤية الفضل على الغير يقول عبد الخديم رضي الله عنه وكل من ينظر فوقه الكلاب والكلب خير منه دون الارتياب waalam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fadula la biltisaabihi liman qad ictala min jihati lansaabi ummin wa abin fa fihima ijtahid maa taatuli wa minha alxasadu wa huwa xubbu zawali nicmatin an muhtadi huwa almusamma indahum bilxasadi wa huwa daau muntashiru fi lmujtama wa kulluhu dararun yataadda bihi saaxibuhu alladi yazallu fi kamadin wa gammin amaama anniami alwaarida wifqa aliradati alrabbaniya wa huwa kama qaala alshaair